jërë ngeen jëf Babacar amati mbétte kontaan ma baax a baax amati mbétte bu baax ah Ketchup doomu yaay njamba. Eh, eh, Ala Ndiagas mi ngi ñëw. Ibrahima foo jëm. nañ waxtaan ba pare bu demee ko ñagas ñagas ñagas ñun ñoo la bañoon. coow li bari ñun ñun ñuy laaj. léegi ay ca ñagas njambaan la. waaw ñagas njambaan combat la parce que ñagas bëgg démb rek la fi dóor booy Sadio bu daanu. dóorul kenn ñagas daa mën a dóor kenn ak biiram bu rëy boobu. Eh. ñagas mënut a dóor kenn. mënut a dóor kenn. sàppet la. ñagas yéen lay lapp-lappal nii rek. mais booy Diop si bu Ngor loo ciy wax. boo Diop si bu Ngor làmb jànk. làmb ju àdduna bépp di xaar làmb ju ñëpp bëgg. Mhm. taxaw na. ah bëri woon na ah. mais loolu moo dul yoon. ay ñaari xale bu ñu bëggantee ne mag ñi bàyyi ñu bëri. mais mag ñay nekk ci kaw di lapp-lappi. ku ne di wut lu mu ci am. mais làmb xale la. Mhm. nañ bàyyi di jël xale yi di leen boole paa yi. Mhm. làmb xale Diop de Cité bu Ngor feesal stade mu fees dell làmb ji fees dell. dëgg la gise fermé la. waaw ah, bon bon di jaay vingt mille billets. waaw moom làmb joo xam ne làmb coono mais jamono jii ñu problème bi dafa commencé dal promoteur yi booy contrat yi ñuy signé deux contrats yi loolu bu avancé du yàq dara ci làmb. waaw léegi promoteur nañ téye seen xaalis. Mhm. promoteur yi. mbër mu ci ñëwoon ci naan ay jox ma deuxième avancé yi ni tee sam wala mbër mu ciy jox xaay na ko signé CNG ba pare. surtout signé nii ak kii dem décharge def ko police ak woo gendarmerie woo avocat yëpp ngi signé parce que. dëgg la coolaay yenn yëf jàmm la li bu yàggee day am day indi ay jafe-jafe ci làmb. waaw la trois avancé ak deux avancé. léegi daal promoteur bu ci mun a téye sa xaalis di ko jox mbër na ko signé gendarmerie conk. dëgg la loolu de mooy yomb. waaw lan ngay xaar nga bëri waaw yow. Hmm. man dag maa mos a daw làmb. déedéet mos a daw làmb. waaw ah. a daw làmb de. mosuma daw làmb. dëgg la de maa ngi saapuy la. <laughs> Fouta ko tëgg sama promoteur bi. mais Boucher man nga bàyyi fi ñëpp jël saapuy. moom moo fi bàyyi ñëpp jël ma. saapuy dañ koo jox xam nga saapuy jox nañ ko ñëpp. jox nañ ko Albouri mu bañ. jox ko Pokola mu bañ. jox Tony Junior mu bañ mu ne Boucher laa bëgg bëreel léegi nag la mu bëgg ba rek man man dinaa xam dara man. mbaa la jàpp bi fi la gën a gàttee. loolu la bëgg loolu la foog dafa foog moom lu nooy lay wër. fii dafa woo koŋ. saabu yi nga xam ne <laughs> man du ma jënd. Ah. man du ma ku ñuy napp. waroon na daal a jaay de. parce que sëñ Tuubaa boo bëggee napp da ngay dem géeju Yoff bële wala nga jëm géeju waaye man kenn du ma wala mu seeti ay ñoom Jokkel. laaj leen waaw na leen laaj leen booy bi bu taxawee ak ñoom lan la ñuy gis <laughs> lu tax duñ dem. waaw lu tax duñ dem waaw <laughs> lu tax gaa yi duñ ñëw. lu tax gaa yi duñ ñëw lu ñuy gis. na ko laaj. Isaa Pouy Isaa Seen. ah Seen la sant. Seen. dem ba Thiali Seen. bu lébu bi nag. <laughs> bu lébu bi kon seen cukki li mbir gaal la. Issa la tudd <laughs> est-ce xam nga ni interview bi ma defak Abu. si système bi yëpp sama interview bi ma def ak moom moo ci bi ma hmm. defoon amul beneen bu ko raw xam nga lool. moom soo waay la. waaw ah, télé mu télé bii maa ji. abu daa <laughs> ah, maa jig sax yow baax. abu Issa Sène na xam ne lépp dëgg la. ah yaayam. baax na baax na ah, ah bàyyi nga mu waaw dañu dem. fi muy dem Gambie fi dem. a moom day dem Gambie. waaw affaire yi mu fay jëlee xam naa ko. affaire yi mu fay jëlee di ko jaay fi xam naa ko. Eh. xam na ne wax. bu mu daw nag daa daw de <laughs> avance la bëgg a daw. lay jaay du dara su ma ko nga xam ni <laughs> du ma ma tafaatin de. ah. du tafaatin. du tafaatin de. yaa ngi koy baax waaw léegi léegi. def na am na changement de. yàlla baax na a baax na bàyyi leen waxu Balla Gaye. waaw nga ne doo ci waxati. non bàyyi leen ko mantar la waaw. bàyyi ko bàyyi ko foofu mu dallu rek. waaw bàyyi leen Balla Gaye wax leen fii. ñu wax bi. waaw Balla Gaye mhm. Issa mi ngi ci moom tamit waaw. Issa Pouye woo leen Fouta. Fouta moo war a taxawal moo war a jël fii dat CNG. ana Birame mi ngi fi demul. demutoon de muy fël sànq ba léegi. Hmm. moo war a joxe dat dat yi moo jafe. moo jafe mais ba ma ci ci beneen commande bi nga jël tegaat. man non benn benn benn. ba dem ne Zarko. mais bi nga buuse yàgg Zarko ku ko tëggoon. Zarko loolu laa bëgg dof la. mais nag bañu ma de. ah bañu Zarko mii nga xam ne amul carrière xaalis day wër. <laughs> bu paree ci bébé jën na ñëw ma fay ko bëreeg moom barke Serigne <laughs> Touba Mbacke barke alxuraanu Karim bu Zarko bëreeg bébé jën xam naa liñ ko fay. bu bëreeg bébé jéen ba pare. bu dee moo daan bébé jéen. buñ ko daanee nag bëggatuma. ah moom mu daan rek. moom nag na xam benn affaire de. Zarko daan rek ko jig de. Zarko bu daanoo fay. Ah. waaw lii moom man maa la ko wax. parce que coow yi mu fi indi ak lëjël lim lëjël làmb ji nii. lëjël supporter yi lëjël waa CNG lëjël bira CNG sax dako koo lëjël. da lëjël ñëpp ah ñëpp la lëjël. foog muy daan soo lëjëlee nit ñi buñ la daanee dangay ngay ñàkk. Zarko bis bu daanee Bébé Diène ma fay ko double li mu bëreeg Bébé Diène pour bëreeg moom te day jël far force man maa la wax li ah, waaw moom de la gars yi moom nee moom boo ko fay xaalis mu bëreeg man. faalewul loolu xaalis day wut. ah nee na moom dañu ne daa ñëw pour naa wax benn këram bu muy tabax xam naa ko. Ah, mu ngi tabax kër. muy tabax fi ma dëkk benn la. Bousse xam nga li xew ci réew mi de Bousse. loolu kañ laaj ko ko. Eh, moom ñoo bokk koñ. kan lay woo. Tapha Tine damay woon nii. nu mu lay wane Tapha Tine ma ah, xool. moo ci Tapha Tine. Tapha Tine ñi muy ñi muy nekkal fële ay acaka la ñuy la. <laughs> Côte d'Ivoire la dem de. acaka ak poulet braisé moo fa am. poulet braisé poulet braisé poisson braisé poisson grillé poulet grillé. mais dinaa faral fruits yomb de fruits day baax si mbër kii. fruits moom bu baax bi France la ne ah, fee dañ koy gazé. dañ koy gazé <laughs> jërëjëf Ousseyn. naa ñu may seetaan. mais bu tëjee bu tër man bu tëjee. man yaa yaa ngi may seetaan ñëpp mënoo ko leen. non non bu wax loolu. waaye kon na ma ñëpp bu wax loolu. Eh, eh, bu wax loolu bu saaga nañu eh, eh. yow bilaay boobu yow yow. non man damaa xam ne man damaa xam ne xam nga sama problème mooy dafa ndaag maa la dafa ndaag maa la xam nga sama problème non waaw nan déglu waaw sama déglu waaw doo bàyyi buuse dama ak man waaw nan déglu de waaw nan déglu saagaaw ma kenn léegi saagaaw léegi nan déglu de sama combat ak moom tapet bu ba na ngi nii dafa daw avance bi ñu de sama top bu ma jë bu ma jëlee ma noq ko bu ma jëlee ma noq ko. yow yaa daw combat bi yow fan laa daw yow yaa daw combat bi yow. moom bi ma daw combat bi. kan saaga ko daw combat bi. non non bul saaga non bul saaga man boo boo. non non bul saaga. bu ma saaga mu ñuus ko fii. ñamal bu la saaga noq ko. parce que Serigne Touba boo ko saaga mu ñuus ko. man lii da waa man. barke alxuraan géej waay gépp maa ko mi ngi nii bàyyi kii bàyyi kii laa la wax saaga bàyyi kii dinaa wax ak yow parce que kii tapet la mu ne kii tapet la muy dugg fii wax ak man si affaire yooyu man dama lijjanti lii. njambaan njambaan man la a ragal ci àdduna dikk fii. gis nit ñi nii njambaan a ñu wax damaa saaga. ngir jëmi Serigne Touba rek saaga quoi daa ñu ñuy ay kilifa ñuy seetaan bu bëggee mu neex bu bëggee weere ma bàyyi. waaw non non non non waaw nañu weere man ma bàyyi. waaw mën nañu. ay kii bi ñooy sant dëgg la waxtaan leen na. du ma jël ci góob parce que moom dof la eh eh la du ma jël ci góob du ma wax lañ may xeebee. barki alxuraan barki alxuraan laa la waatal maa ko moom. barki alxuraan bi dama koy noq. eh eh dama koy duma dama koy duma. billaahi wallaahi kii daa am njëriñ kii mel ni ko jabet woon. waaw damaa ko jabet. nañ wax pour rek eh na eh kii kii. waaw maa dama laa waatal ci alxuraan ni géejawaay ku fay takk ngeen maa eh? la man. te digal daal la. bu ma ay digal bawol bawol bawol bawol bawol bawol bawol bawol bu ma neexee ma ne maa fa mën. loolu ba tey nit ñi eh eh ñu eh, eh, bàyyi saa rek non non non non nit ñi daan jikkoon day gën a dof. yow ma. voilà mais. waaye Sow bàyyi ko mu def lu ko neex. dama lay wax dama dama. <laughs> mais bul saaga. non dina am loo miti quoi kii daw sama waa ah, tapet. ñuy wër ko ñu koy wax yow balaa dee sama bu ma la mënul yal naa di dugg. bawol gi yëpp ma ma taxee ngeen mënuñu maa daan billaahi wallaahi wa taala kii tapet la eh, bu sabee jaag mu daw kii tapet abu mi xam na lu muy wax. maa la gën a koy des pare naa. naxas. kii de bànn kanam gu naaj gi kii bànn la kii di kii bànn la <laughs> kii kii yor naa bar bi dama tax xoolal ñaari kanam yi nga ne kii bànn la xoolal kanamam xool sama kanam. moom gisul sax moom côté bi lay xool. waaw yow noonu waaw yow moom gisul ko yow koo xool si loolu. koo xool man nga xool wala ñii. wuy ma góor du góor du xase góor du xase. bi nga mel ni lu kenn xam. kii bu doon may dara. non Pape Madiop moom mooy wax moo dem moo dem moo dem laajte ma Abu pare naa Abu pare naa bul ma nit di ma xool damaa pare de. barki Serigne Bamba Mbacke damaa pare. yow noo pare balañ la le balañ. Eh, balañ la de damaa pare boo ma jëlee ma noq la. barke barke alxuraan. ñagas amoo fit. barke alxuraan maa ko mën. barke Serigne Fallou maa ko man. ban kii man ngay wax ma mënul géej waaye yàlla naa dugg sa da ngay tuul maa leen man eh, da ngay mille fois maa daane Youssou Ndour daan ko Youssou Ndour ah, bu sax ndiga ah, duma kenn. Ah, ah nañ ko def ci restaurant rek mais du duma kenn. mënul duma kenn. bëri na combat teg sept combats sept jours teg na dynamique yu garaaw ci lamb. kii du xaj bu fekkee xaj naa ni lamb. an kay an kay. Sané Ndiambar non Sané Ndiambar kon. Ndiambar Ndiambar maa ko man maa ko doole waaw bu yeboo. kana sonn fa nga sonn. déedéet ñaga sama xarit la de. bu saaga rek faf ñagas bu saaga ay réew réew lu doful sax. maa ko man maa la gën a réew bu arbitre bu arbitre tëjee. maa la mën bu arbitre tëjee boo ko bëggoon sama combat ak Tapha Tine fii bu mu arbitre tëj ñu mais Farma Dia mais xam naa leen ma fay baaxul mais bu ñu fay gis naa leen ma fay baaxul de Farma Dia kii maa ko mën mille combat a ko dox bëri maa ko bu doole defu fi dara yow loo de kenn da koo kenn da koo kenn xamul wuy ma wuy ma waaw léegi wuy ma Ibulaay Ibulaay daf maa daan jël bu rëy mooy yow ñëpp la daan jël waaw defal nag li nga am defet aw ma ko defet yaa mën a duul barki yàlla nga compté defet compté yow compté say defet am nga huit defet yow <laughs> am nga trois defet la am ci lamb Bélélé daal moo ko daan Albouri. combat moo tax yow mën na douze man moom dix combat man ma bëri ma lam. en tout cas man Bélélé daan na ko Albouri daan na ko. ak jërë deux. yow amuñu lan la yow looy soosu kii barke alxuraan barke alxuraan laa la wax dama ne. bul kay kii bul kay kii bul kii mën a yow la jàppal fii. dama ne fan fan fan bu ma ñemee yàlla naa di dugg sa wax. waaw léegi waaw léegi am mën naa léegi am mën naa. am mën naa bu dee moom bu dee moom ñeme na ma yàlla naa dugg sa wax. am léegi ma wax la am léegi yàlla ngir yàlla waaw man ñam man yow man man yow la neexee sax waa léegi nu mu la neexee ba nga ñëw fii sax dikk nii attaqué ma nii lan la dama lay jël duma la mo léegi ngir yàlla bëgguma bëgguma di wax rek léegi li mu fay ma bëre Ibra yaa ko bëgg yaa ngi fa ma la reculé yàlla moo am ngërëm ma la reculé bu ma la reculé yàlla moo am ah, a man dof laa. dof yow dof fii la barki Serigne Bamba Mbacke baatu suuf lee dof laa man ñii seetaan nañ ma. arbitre ne fir di ma woon sa bee man li ma li ma li ma fir ay est-ce que xam nga ki ngay jël yaa ngi wax rek. ni liggéey bi daa métti de. man ñàkk man doo dégg. ay arrière moo ma ñàkkaloo sama combat. jàppaan baal arrière man du ma arrière. mais mais Bousse. boo demee nga tapé samay combat man du ma arrière. lu may doyee say combat ma yow lu may doyee nga mel ni ko jamet nii. waaw damaa jamet waaw. fit da nga koy ab amoo fit. ah nga daan la leen durum daan la fi def keroog. waaw ah, kenn mu daanu kooku moom champion la nangul naa ko champion moom na ma nangul sama champion nangul naa ko defal ndaag ma la non nangul naa ko bu la yàlla jeyee ba nga dugg nga bëgg a bëri <laughs> dina métti lool ci yow lakin xam production promoteur. ma jël lan la dama bàyyi ma. ah mi tëg mi tëg combat. tey ngaa xool lu gën a yomb. waaw lan dugg ci yow. mais lan ah Fane